nun ñii ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye loolu dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne da nga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog goonu tibbal rek ñu ca nooru daari ngeen def doy na sëkk nooru daari moom nooru daari moom am naa ci am naa ci am naa ci firnde am naa ci firnde am am naa am naa ci am naa ci firnde Cheikh Salihu moo ma ne woon dee ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj gi ci mujj gi bis bu ma jàngal ko ko bi ma ko gisatul te xat-xat yi bari aji mujj ne ma jàngal ko ko boo koy jàng du ma ci fas dara sax saa laa ko